barke sëñ Fallou Mbacké asalaamaaleykum waa jaareemu seen xarit seen doomu nday Didi Fama Diop bëgg fallu soppe waa daaray Kaamir maa dellu siwaat ak ci émission bi ñuy wax xalaate jàmm maanaam xalaat ci jàmm nu ànd xalaat ci jàmm di nuyu suñu mu doxaa ba si borom tëgg na yërmande ak mboolem kilifa diine kilifa aada ci dëkk bi di leen ñaanal jàmm ak xéewal ci doole sëñ Fallu nu ñaan mbas mi ñu ne yàlla ñu duroog jàmm ci doole sëñ Fallu seen émission bi nag tey ñuy wax xalaate jàmm thème bi mooy dëkkandoo jàmmoo dëkkandoo jàmmoo dëkkandoo jàmmoo ama jeegu Mbengue Fapenda lenn moo ñu nar a naxe lenn rek moo ñu nar naxe danoo jàpp jamono ci ab lim ba nongu naan nangami waxtu la nangami bis la nangami weer la toll ni ama Mbengue Fapenda dina waxtu rek la adduna waxtu rekk la dañoo wàllisee ci waxtu wi toog ci waxtu wi nara wëlbati ko ci waxtu wi waxtu ci bis bi bis baa ci weer wi weer waa ci at mi te waxtu yooyu la ñu bari bari bari bari benn bokku ceeg sa morom kon su ma nee na nit ak yooyu yoor bi wute naag boobu tisbaar bi nga war maa gëm nit ku ne sartoo la fi ba nit ku ne sartu moo la fi ba kon lu fi xëccee amatu fi lu xëccee fii ci àdduna ak a werante amatu fi jeex na ba noppi jeex na ba noppi ndaama dañ laa nax ci dégg ba nga màgg naan jamono waaye jàmmoo no lañ la wax maanaam ci jam rek nga mën a am sa noggi jàmm rek nga mën am sa noflaay maanaam jàmm jàmmoo no ci jam rek nga mën a am sa bakkan bi sa noflaay gi alalu réew xéewalu réew du jamaa du pétrole du gaz du dollar dara pour jàmm ndaawa dara ëppul jàmm alhamdulilah ba nu fekkee ñun weesu noonu jamonoom xotti saaku di sangoo weesu noonu jamonoom xar gën di jaaroo kenn dajaleetunu ba marax gi machine wécceeku nooy dërëm kenn liggéey leetunu ba ru deenu fay nooy duma nu war ko yokk sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax ama jeego mbeng fa pend kër yëpp a toppante wante tappaat be leen xajale ñun bu nu àndee yëgoo ñag bii dootuñu tàggale kër yëpp a toppante wante tappaat be leen xajale ñun bu nu àndee yëgoo ñag bii dootuñu tàggale kon daa mën naa nu bokk xol bokk xel tey lem dem leen te jamono ji yàggatul ndax bu noonu sàkkuwee rek te gën yërmande yi yitte war maa ko lëre toog doxtaan te moytoo réer doomu réew naan toogi muñ nangu na toog ndogal déglu ndigal xaar ndogal seenu ndimbal jënd ba noppi jënd ba noppi ñetti rek la fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def mu ñett ñi ñun la jigéen wéru ji liir bi néew bi jéena ba noppi ndaa ma xol bu jóg ne xel may doon garabam nit ki nitee doon ndimbalam nun buñ jiitalee waxi lislaam teg ci àq dëkkandoo waxi njabar geegone yi dootuñu boole doomu réew mi noo bokk xel mu rafet tey dem lente jamono ji yoggatul noo da sàkkooy rek teggin yërmande gite war maa kóllëre toog di waxtaan te moytoo réer ndaa bu naan toogee muñ nangu nattu ak ndogal naan toogee muñ nangu nattu ak ndogal déglu ndigal xaar ndogal seenu ndimbal loolu moo nu war daa ba neex na ba noppi neex na ba noppi ñun weesu nañ jamonoom xotti saaku di sangoo weesu nañ jamonoom xar gën di jaaroo kenn dajaleetunu ba ma rax gi maase nu weccuku nooy dërëm kenn dajaleetunu ba ma rax gi maase ni nooy dërëm lii bii ci kër gi boo bëggee jubóog ndeyam ndax ko nun doomu metit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 moo ñu tax a nangu non nii moo ñu tax a nangu nangoo nangoo nangoo ba mel ni maam falu Mbacké kooku daawul tongoo sëñ Fallou Mbacké daan na wax naan bu rombatee nuyu la bu ko jàpp ñàkk yitte nee na rafetal ko xel maa jàpp ngeen juboo soo ko rombatee jàddal nuyoo te moytu rëy bàyyi sama dama Mbacké Fadul daan na wax naan bu ko waajee yoreete ba mu sakkan mayu la ci mu ni bu ko jàppeem nay nee na xoola fa wërsëg ngeen juboo bàyyi soxna dama bëgg fatul daan la wax naan bu la waaj a xaaritee ngir duma jox ko loxo tey ree jàmm gën doole xuloo fajul mer tongoo yorul doole bu nuy juboo di noppalu ama ama joogu mbeng faa penn kër yëpp a toppante wante tappaat bee leen xajale ñun bu naa dee yëgoo njag bii dootuñu tàggale kër gi am kër la kër gi am kër la dañu fi négandiku rek wante dëkkanu la xal yoon la waaye bu mu tax a xëlu ba fàtte sàmba dëkkandoo bi ndax ma dëkkandoo jàmmoo bokk xel bokk xel moytu dënk ak umpalante teewaay bi yeggatul teewaay bi yeggatul fii la nekkoon lii la fi def fii lañ ko def muy seede bu liggéey ndaama yàlla na seede bay rafet benn lañu nun doomu aadama benn lañu bennoo mënta weesu moroom mu la woon ginnaaw moroom ma lay wuti dama nandu toog a muñ nit ku ne moroom la suñ borom dina tool nit ku nekk sa moroom la suñ borom dina tool waaye dañu ni bu ñëpp tolloo la woon xam-xam bu ñëpp tolloo la woon am-am bu ñëpp tolloo tolloo la woon mën-mën kon nattu doon fii kumba kon kenn du xam nattu na noonu tanantee te yàlla tax julit du fayantoo waxee sëñ Fallu ngoog aw bu sund bi daa maamati ñang nanu ànd tanantee te yàlla tax julit du fayantoo xol bu jóg ne xel may doon garabam ni ki doon dimbalam ndaama bu ñu jiitalee waxi lislaam teg ci àq dëkkandoo waxee njaboot ge gone yi doo sunu boole nu ànd bokki kër bokki kër tey demlante jamono ji yàggatu ndaama noonu bokki kër bokki kër tey dem lente ji yàggatul xool bu jog ne xel may doon garabam nit ki nitee doon ndimbalam xol bu jog na xel may doon garabam nit ki nitee doon ndimbalam ndaama dëkkandoo jàmmoo dëkkandoo jàmmoo bokk xel bokk xol moytu dënga umpalante teewaay bi yàggatul teewaay bi yëggatul asalaamaaleykum waa réew mi suñ borom def ni la su weesoo suñ borom ñaar dong mën mën a wecci ndey ak baay maam def ni la su weesoo suñ borom ñett moo la mën a wecci ndey ak baay ci yar muy teggin ak kerse su weesoo suñu borom su weesoo suñu borom ñett ñi dong dong dong ma la mën a wecc ndey ak baay ci àdduna li ëmb yar muy teggin ak kersa waa kersa foo ma waaye kersa kersa foo ma féete tey yow kersa da ngaa bëgg a jeex danga ngaa a taxu am dañoo takku juwoo kersa foo ma féete waaye yow kersa foo ma féete tey kerse yow kersa da ngaa bëgg a jeex danga ngaa da ngaa bëgg taxu am dañoo takku juwoo démb ba tey maa ngi yoon wi démb ba tey maa ngi ci kaw yoon wi dajewu maag sutura dajewu maag teggin dajewu maag kóllëre dajewu maag kersa dajewu maag yar waa kerse lu xew lu xew yow kerse dangaa bëgg a jeex dangaa toxu am dana takku juwoo du xew danu gën si àdduna mag ba ràññee jiital kàttan fàtte ndimbal bàyyi fallu loolu li ko waral dañoo jël suñ diine jëndee ko suñ jamono yow xale bu jigéen bi da nga jigéen nga toll nga ci ndaw toll nga yow xale bu jigéen bu toll nga ci ndaw da ngay jaayu génn sa biir kër ba fa kilifa génn ci biti wut ay kilifa waa sa sa cër yi nga ne bàcc ci biti ngir ñu xool ko ba luy njariñam jonga ma da ngaa génn kër kilifa wuti di kër kilifa waa sa cër yi nga ni bàcc ci biti pour ñu xool ko ana njariñ li xam naa da gone jongo ma xam naa da xale yoon wi ni xëy di jaare te sañu noo bañ li yàq mi ngi yoon wi li lay defar mi ngi ci kaw yoon wi jongo man xam naa da ngay gone xam naa ni xamuloo am na làmmiñ yoo xam ni am na bët yoo xam ni bu seen bët tegoo say cër rek yàqu nga te xamuloo ko dangar moo bokkul bët yee bokkul sa cër yi nga gën ci biti ngir bët xool ko ndax ñàkk kersa ñàkk teggin da ngay gone te xamoo am na bët yoo xam ni am na gémmiñ yoo xam ne bu tegee seen bët sa cër yooyu nga ne ci biti ba yomal xam doo am doom ba yomal xam doo sëy a jonga ma nee nga xale bu jigéen nga toll nga ci jaayu amoo te gën amoo kese génn say cër ci biti ni nañ la xool day day sa boo nekkee senegal di doomu julit soo jaayoo du jaayoo ñàkk te gën bàyyi ñàkk kersa wane sa cër amul njariñ nee nga xale bu jigéen nga da nga jaayee toll nga ci jaayu noonu neex solo yoon wi ngay xëy di jaare saa su ne te sañuloo bañ li lay defar mi ci kaw yoon wi li lay yàq mi ngi ci kaw yoon wi am na cër yoo xam ni am na bët yoo xam ne am na làmmiñ yoo xam ne bu ñu tegee làmmiñ bu ñu tegee bët sa cër yi jongo ba yom la xayam doo am sëriñ doo doom te doo gudd fan xam naa ña nga bàyyi ci biir kër ga ñoo la ko waxul waaye yedd daan na gën yërëm yedd daan na gën yërëm ñun suñ jigéen lislaam nee na nu ànd fonk col gi sàng cër yi moom li diine wax suñ diine islam dafa ni naan na fonk col gi sàng cër yi moom la diine wax mooy sa njëriñ yow jongama bët yi bokkunu dangru bët bokkul dangru làmmiñ bokkul am na bët yoo xam ne am na làmmiñ yoo xam ne buñ tegal sa cër yooyu ngay wane ci biti ba mën a xam doo am doom mbaa doo sëy mbaa doo gudd fan dangaa doon bàyyi waajur sa kër nag waxuñu la waaye fii nga jëm ci mbedd mii moytul da nga fa daje ku donc ma lay yàqan ci mbedd mi li lay defaran ci yoon wi moytul yoon wi dafa am boroom ah ndeysaan suma ma technicien mi ngi may wax naan nag ni waxtu yu jot na ki ne woon nag eh, ci technique bi ñu sama sama doom ndey suma xar dañu ko wax Baye Fallou di nuyu ak ziar Cheikh si te sant si xaar bii su fay jóge na Amadou Ba maa ngi ko sant bu baax a baax a baax xaar. Amadou bopp lu ndaw bu seede ba rafetee wecc ndam da ngay jiir waaye du ñu góotoon góor xaar xaaroo kenn ci kóllëre xaar xaaroo kenn ci la war xaar xaaroo kenn ci sa ci xur wi ci gox wi bu ñu la netee baax na dañ naan laajal ay mbokkam laajal waa goxam waaye fay gàcci ngaalaama ñoo lay ziar di la sant tey ñaan taxawaay bi yàgg ci doole sëñ Fallu diggante beeg Amadou bi yàgg ci doole sëñ Fallu VFTV di seen télévision yéen doomi réew mi VFTV ngi di seen télévision yéen waa dëkk bi booy waa liyaan daa fekk dëkk tëgguloo olof dafa ni bu dee ta ñett ñaar ci biir kër gi mbedd mi lu mu neex neex neex su guddee da ngay tëddi ni ki am lu dëkkam jërëjëf Faye jërëjëf xaar ñu mu xaarul kenn ci sa dëkk yàlla na borom dëkk bi fay doole sëñ Fallou seen xarit seen doom day nekk di leen jox rendez-vous incha allah semaine prochaine man maay soppe waa daaree Kaamir di bëgg Fallou émission bi nag ñoo ngi ko tuddee dëkkandoo jàmmoo ci seen télévision bi ñuy wax VFTV la chaîne des valeurs télévision bi nga xam ne jigéen ñi lañ ko duppee. xaar jàmm ak xewal déwén it waa jaaree